Salam alaikum à vous la j'espère que vous allez bien. Je nañ bu baax di len mais aussi di alors comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec votre très chère et adorable sister Kenza 221 bah ouais votre animatrice de luxe ma gëna xam j'espère que les lépp cool lépp fine man mom sama côté ma ngi à je me porte à merveille donc sama tey nag euh, dañuy doxantu ba biir Mauritanie seeti benn groupe de rap boo xam ne ñaari jeune talent ñoo ko bokk muy King Alzo ak MC ñoom ñaar ñoo bokk groupe bi ñooy membre fondateur group bi mais nag MC mooy grand bi moom moo jiitu Alzo ci game bi et moo ko njëkk a en plus moo ko xamal lu bari ci game bi xamal ko nu ñuy rabee genre nu ñuy tegoo ci bit ak tamit nan la rappeur war a comporté woo mais nag ba MC demee ba gis ni also commencé na adopté wu maanaam commencé bëgg rap commencé mën commencé tegu ci bit bi nice ñoom ñaar ci lañ créé seen groupe bi commencé ànd di rap ay doomu Sénégal ak Mauritanie lañ ñu ngi dëkk benn village buñ naan Gani ci Mauritanie also nag 17 ans la am MC moom moo am 23 ans mais nag par contre ils ont pas mal de sound seen sound bari na trop parce que 2019 lañ commencé. mais ci 2019 yooyu ñu commencé rap ba léegi deux clips lañ jot a amagum léegi nag lu ñuy def mooy dañuy xooli seen clip bi nga xamante ne ni c'est intitulé hommage yaay booy nekk sound boo xam ni yaay lañ ci rentre hommage seen yaay booy nga xam ne dañoo jot a génn àdduna ñoom lañ ci rentre hommage donc avant ñu ciy wax nañu xooli un tout petit peu sur la vidéo ñëwaat léegi léegi ay ca si go اللهم وفر لها وارحمها وفر لذنوب كل مسلمين ومسلمة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أها يا واي من منو مرا فايمان ماما من دو مرا فايمان لما من موي رك دي لنان سما نان دينا تاني يوم OK les gars vous avez vu un tout petit peu sur la vidéo et elle est intitulée hommage à Boy donc son la boo xam ne métti na trop sax te tamit daw na yaram surtout ci côté ñi nga xamante ne ni dañoo ñàkk seen waajur son bi boo ko dégloo day laa soxal directement mais nag di ñaanal képp ku génn àdduna te tamit di bàyyi xel ñi nga xamante ne ni dañoo ñàkk seen waajur parce que c'est pas du tout facile mais nag sound bi am na lu ma ci seetlu mooy boy bi di MC dafa polyvalent man je pensais que ni sax ci côté rap rek la mais sound bi di nga rap di way polyvalent en plus dako assurer nice wolof yu set wecc le dor ba len sétané clip bi aussi sans pour autant nga comprendre le sound bi di wax di nga comprendre parce que ci cimetière lañ ko donc rien que de regarder la vidéo même bo déggul un sound bi di wax sax di nga comprendre sound bi ça parle de la mort gars ñii nak ñoy MC ak ki nga xamanteni modi Alzo King ay jeunes lañ yo xamanteni ñu ngi ci game bi di rap comme ñep donc vous ngeen dem suivre sur leur chaîne YouTube Instagram ak fi nga euh, Facebook ngeen pouvez leen tegg leen loxo abonné abonné ci aussi donc wax leen seen xalaat ci ñom à vos claviers à Alors c'était ça la vidéo du jour avec votre Sisa Kenza. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de partager mais aussi de liker. Commencez sur le Je sur Instagram sous le nom de Kenza l'officiel. Ma page Facebook euh, Kenza221. Sur TikTok Kenza National et sur Snapchat Kenza Diallo. Allez, peace and love. jam à la prochaine et gros bisous à vous. Portez-vous bien.